boroomam moo ci tegu a kajoor dañoo wax ne ko fóotal mbëtt roccil baat rasulullah yi li sëñ Tuubaa doon tagg ci asir boobu mu sëñ Musaa Kay di tagg sëñ Tuubaa di jikko yi nga xam ne waxab lana makarima al axlaaq maata bi laa saxaar ndax wa innaka la ala xuluqin naa la yàlla wax rasulullah yaa gën nit ñi bind ak jikko jikko yooyu nag bu rasulullah demee sëñ Tuubaa ne rasulullah rafaatale ma jikko yooyu dañu sànk nag dal koy def waraf ki nga xam ne yàlla dafa wax ni wa ma arsalna déet ma yónni min rasulin ma ko yónni ndaree du askan waa ko yebal ca lay judoo yar seenu làmmiñ ndax bu ma ko deful bala xara moo leen gëddee tax ngeen def lii koo xamul woon man ndax sama ndaw la dafee ñëwul ñu ne aha kay waaye doon wax ko déggul kon ñu yey ma te yey ma jombane ci jaam moo tax sëñ Tuubaa bi mu dikkee te feeñunu ci làmmiñu wolof ak der bu ñuul sëñ Musaa Kay tagg ko ci wolof mu tagg Rasul ci arab mazatan waajada way ngeen ji yonen maanaam fal ko muy bu boromam li tax way wi waral sama jëkkëraara moo dama nar gaa yi jàngul xam boromam ma jooy ko te way ko ndaxte mu dolli may may géwél sañ naa wari luy kañ boromam ma nettali fi jaloore te solli fi ndam te waxar ba yu tàng yéen xam boroomam te xejee fal xam nañu maqaamam ca xar baax yaag ca may yaa xam boroomam ca wali yaag ca xaw sax fa diiwaan ca xut bu yaa ak ña daal yéet ak boroomam ñaxami yàlla ñaxami yonen ca baawan ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo wax ba ko noon bi yóbbu ku diingat wax ji moo juyoog boroomam te géej gala lambe yàlla ba fekk muy géej mu tàng ca leeri xëy ya naan boroomam te géej gala dake seytaane ki gaayam muy tal boroomam ca giigala moome mbuutum kun ki baatin bu noon di fabi e kanoom mu ni kun boroomam ca giigala bamba ci jéen ndambe xam-xam ba far yoro luway xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yonnen ñu sopp ko soppi lépp muy boroomam mu saal foofe jiyaari bakkan ci ay at di boole tagg ak julli e wéetal boromam ba wasee mel ni suukar fàtte yoon naan di mu am muy mu am ci baatin kay boromam ñu ba ko wafal tawal ko ngërëm mu fakkun ñu wa matru yi jox ko mu jox boromam di kenn ku ñëpp xam foole ci baatin tubaab yi bañ sëriñ si yem boromam mu faw deb jant tiim jëpp duniyaa di taalif téeri i sellal boromam malaaka e seere pargamaam fa diiwaan mu fay ay xut bu ñuy déeg boromam balaa la fa ci saayir ak ci baatin ñu diisu ak mu te mooy jaasi boromam te mooy wuutaatu yoon nen far ci kaw suuf di mbuutum kun ci lépp lu soob boroomam mu làq ngërëm ci saayir ak ci baatin maqaamam faw xam mboolem ñañ boroomam sëriñ Tuuba jamaanam jax foo dem duy ku faabu nii nes bu jënee xam boroomam ku suubu tewe itaaw yoonam waseesal caay leeram ba fab di duyal moroomam ku suubu dex na xam ndox dox bi yeewul tewatum ndox lewet na te wex ca biiram ku taggan sanku faw te labte duy te doo set doo setal doo xam boroomam mewoy bàmbaa ngi waaju xamul na dégloo te roy roy liy jikkoom moo xam boroomam day joxaji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ tegu tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boromam di faj aajooka xam lay bu di seexal di génneeg ruu ci tuskare jox boromam di fekk gu ñëpp xeeban ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mu ak boromam di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal sarfa xam-xam mook boroomam di fekk murit bu dof bu tilim aa mu fóot ba mu set tafal mboorom boroomam melay kaw yaag melay biiram dëppoona du déglu lu bon du digle lu dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam du jàq du rët du jaaxle du fàtte nen te musula tawat lu xew ci kudul boroomam du rawaay noon du yoxi yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb kudul boroomam lu mbir rëy rëy fa dolli ak gëm du yoxi du daw di mbër mu farak boroomam du déggu nodd mbaab kàbarte tiiwul lu taw taw ak lu liw liw tey boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am tiis ba mu tax moor farata i boromam du tab jëbatiim du wuute musul di maamu du gappro bés du weeru julil boromam du yéexeel wenn waxtu de mus la fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul tiire yi boromam ah, du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos ngir er boromam ah, ah, du dox di tëju ci dëkk aleem ci ay kër bu wéetaam ci ay anan mbaa boromam di faraay moy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sànja boromam bu na fi naree da jëm si sànja bootam mu daar daar loo ko ñu daan def boroomam yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw mag ba jébbal leen boroomam yafal nay bër tabax nay kër ci suuf si xamal nañu sànk woon ngirum boroomam tafaal na ci réew mi faa bu dul fay ci duniyaa ma seefu la gis kamam tey moo boroomam badar bani kekk nooy bani nemme teg wet tam njambaar bu tar tarawal boromam woyof bani tooy diis bani gann cig wet lewet bani doom saf sapak boromam ka sawar te lefog te yaatu te xir di tabbulul jeele lu mu am ka rafet jëf saf xorom du waxaa te réewul bari te ak ku ma jëf ngir boroomam dafay jar seen du ay bokkam jaabur ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du xaste du dóore bay fayantoo du doon war maa ki bokkam maa boroomam du rummi du rog du janni du xotti saatir dalay yaatal ëfal la bu màkke du fecc wëllëre mus la war nit to xadidu naa bu yërmane ngir ba mam du bew du bajantu dawaaroo kawaare du du fakki maasam mbaa boromam du reetaan nit du farfarloo du sot nit du yàqub jar du tas nit ngir ba mam ndaan jeex ju koy yonan la la moo ma ñeesi ngeleelam yee baraamam fu ne raasee di waaji mel ni mimbar wayaf na ca kaw te diis na ca biir boroomam fu ne raasee di koy fabal xuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu ne raasee di waajoram ni buy way arafu mu des araf di ca biir boroomam fu ne raasee di kag buy dox du geesoo day romb dërëm yi dem ci mbirum baaraaman ku ñuy waase di wax joo xam ne buy wax ku nekk di lox di làqu ku dul baaraaman ku ñuy waase di kuy gis ahlu badrin di ànd ak ñoom di deewaale ak baaraaman ku ñuy waase di wax joo xam ne fu teew ku wopp mu faj ku dee mu ilal baaraaman ku bañ bii xutbu bay raasi moroomam di gis ku ni mel ci ji jamonoy boromam ji siifu ko wan ca gaañe ween ca baawan ca xarnu yi nii jubit bi ci ñëw moromam ku weddi ba tàng bëgg ne maay moromam nga def li mu def te wax li mu mu dox ci réewi gabon wa kongo caay noonam te dellu si cay moromam faya lu mu mel ni faya kay bu rafetee waa ma dundumbe maalam ko baraamam tera ko ko mel ni sayka Abdurahmaan Lo ku juddu fa Mbàkke moo la xamal boroomam mbaara ka ko ko lank jagle Seydi Maxtaar kerem ba siyaare yonen moo ki doomam mbaa nga seexal kam li seex yi Bamba seexal te sellal seeni xol ba ñu xam boroomam te sakk leeni mbooloo faw yi jëf te taggat leen baduñu ma mooy boroomam te bu mu diingat sëriñ si bu mu fayantoo te bu mu béngil koday bootel moroomam te bu mu xas nit bu mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu daggoog bokkal moroomam te ren ne saxal la géel ngën ji yonnen te bu mu tere muy taw faratay boroomam te day xam buuti xol xam baatinum nit saafara raggi xol di xalam boroomam teral na saal jiyaari bakkan ci boppam te muñ ci isan naqar teralal boroomam te bu mu diglee ka aaye ci wàllu bakkan di woote wa kaw te biir ba gisul boroomam li ngay lim doy na Muusa taxaw ba day jotagoo lu mat asagay boroomam ku bëgg di mbër melay Bamba ngi seetal ku mel ni mooy doone xutbu boroomam ku dégg ma jàng way wii nang ma ñaanal ma saa ci ndigal di jëf faratay boroomam